salaamaaleykum mbokki Sénégal salaamaaleykum mbokki Safo alo Sénégal ak gp GPTV Sénégal amaan nañu mbégte bu baax ñu taxaw ak yéen fii tey ñu ngi fii si Louga benn village bu ñu fiy wax Kër Ngeen Sarr ku ne xam na accident bi nga xamante ni moo fi am mu doon lu metti lool doon lu tiis lool doon loo xamante ni jamono yi ñuy waxe gi yéen ñun ñoo ngi fii si place bi fi nga xamante ni fii la accident bi amee ngi dëkk leen li nga xamante ni information la te muy tukkee fi nga xamante ni. mooy Kër Ngeen Saar mbokk yi mu doon accident bu metti ba ñaa fukki nit ak ñaar ñàkk si seen bakkan si saa si kenn ki mu ngi ñàkkee bakkanam fële nga xamante ni mooy hôpital bu Louga mu doon lu metti lool doon lu tiis tey nag ñu ñëw fii ngi bëgg a seet ñi nga xamante ni ñooy mbokk yi ñooy xarit yi ñooy àndandoo ñi ak ñi nga xamante ni ñoo xam borom biis bi fan la jóge mu doon loo xamante ni daal metti na lool lool lool da ngeen topp aloo Sénégal ak bi Sénégal ñu xoolal leen ñenn ñoo xamante ni mën na leen a jël laaj leen si li nga xamante ni mbir mi naka la xewee jaa ma ne ci fajar gi daa mujj a woote sobol bi bi ma ko woowee mu tontu mu ne man maa ngi nii waa ji dugg Louga ci la ñu ma ne ko yoonu jàmm matul cinq minutes ma dégg ni da ñu woote ñu woowaat ma ñu ñu ne oto bi ñu taanu na maa ngi jógee fii ba Dakar ñëw fii pour assister xool matériel ak koor yi ak lu. ban saxoor nga doon déggante ki doon dawal bis. ki doon dawal bis bi Papa Sall. Papa Sall dañu xamante. dañu xamante nekk nañu moom plus de vingt ans. moom ci man la ñu jaar ñu ak sabar yu bari ci moom la jaar jaar na ci moom wallaahi xale bu baax la te yaru te macha allah. bi nga yëgee soog bi ba agsi fi jógee Ndakaaru agsi fii Louga bi nga xoolee soog bi xam ni métti na li benn sentiment nga si am ak naka la la def. mu sentiment ça m'a sama m'a touché ça m'a beaucoup touché parce que c'est la famille qui est dans le véhicule c'est toute les c'est toute l'île à Morphil qui a perdu beaucoup de ces personne parce qu'on est là, bon, tout le monde quitte Dakar ou bien pour, pour, pour arriver ici, récupérer leur corps. Bon, c'est tellement triste, c'est la tristesse qui règne dans la mort Vraiment, nous sommes mais c'est le destin. ñu nga ñu fekk la ngay tuur xewal la moo tooy sa xol ba tax ngay tuur xewal. moo tooy ndax yëpp am yoo xam ne boo ci deggee rek sa xel dafa am lu muy mën a dem surtout benn apprendre bu de Souleymane kooku moom apprenti bu yarul te tey te yóbbante boo koy jox moom e- egg na ci borom moom kenn client yi ba ci boppam bu ñu fekkoon dañu ko ni seede ci moom lu baax kooku moo tooyal sama xol bu ma gisee oto bi mel ni kooku kooku sama xel njëkkee la moom ak Papa Sall yarul. bi loo jàpp ni moo waral soog bi moom. non man bu ma jàpp ni ndax oto bi dafa taw bi moo ko dérapé wala leneen mais fekk kii lu mu expliqué mu ne bi da doon moytu benn oto. fer lii ñëw wala. Euh, ay ban la affaire euh, oh, bon heure bu mu amee war na am huit heures et quelque. huit quelque waaw huit heures et quelque la amee. man ma yëg naa ko ba huit heures et demi. huit demi ci laa yëg après man dem jël oto ñëw maa ngi doog a egg si nii. tey seen bakkan fan lañu gën a ëppee. ñi ñàkk fi ah, juute am na cubalel am na bon. dans toute l'île Morphil dans le département de Podor diggante Kaskas ak Saldé ak Bapete ñëpp ay clients lañ ñoo ñoo fi yéegoo. dégg nañ tamit am na ay xale yu ndaw yoo xamante ni ñàkk nañ seen bakkan. voilà dégg naa loolu ay xale yu ndaw ñoo xam ne ñoom ñàkk nañ seen bakkan ñu àndoon ak seen waajur am na ñoo xam ne sax dañu ñëwoon vacances àndul ak kenn dafa am ñaari nit ñu moo woo sax mu ne ma xoolal leen seen xale yi ñoo ngi woon ci biir oto bi léegi il fallait ma ma demal l'hôpital pour vérifier les corps ci zone là-bas pour ma mun a xam ne. jamono yi ñëpp a ngi hôpital. jamono yi ñëpp a ngi hôpital ñu gaañu yi ak ñu am ñu blessé grave yëpp a ngi ci ñu ñu ci hôpital. ko ñoo lay masawu bu baax a baax. wallaahi ñoo ko bokk incha allah. ban message ngay lancer chauffeur man li ma ñaax si chauffeur yi rek nañu xam ne heure bi heure nawet la lépp a ngi ci ci tali bi tali bi bu tawee day tooy mala yaa ngi ci biir eh, ci kaw tali yi xaj yi mbaam yi fas yi nag yi ñëpp ngi ci tali bi. ndax bu tawee rek ñoom ñëpp ja ut tali bi ak gëléem yi loolu nag dama ñaax safoor yi ñu tee dal ndànk daw ndànk si si moo gën surtout ñoo xam ne yaa ngi yab say mbokk di jëm aller ñu miin la xam la foo toll ñu lay woo foo toll foo toll ndax foo lii amee ñëpp woote ba sama téléphone ma do mu mucc fay benn waa moom moo aal ci batterie kii après ma defaat ko mais dama ñaax safoor yi nañu daw ndànk dal ndànk mais lu mën a ñëw nag day ñëw mais nag kenn mënu ci dara. mais nag euh, euh, accident yi li koy yi nga xam ne jànguñu oto lu yàgg. dañ ñun moom ñun moom suñu chauffeur yëpp dañuy jaar ci lang dañuy lang ba bërëbëte mhm. dañu lang plus de cinq ans ans ñu soog am ay poids ay poids lourd soog am encore transport ñu fi bërëbëte yëpp ci horaire yi kenn du génn dañ leen jox oto ñu dawal ay responsable duñ lañ ay responsable yu mag lañ ñoom moom macha allah moom du duma leen wax ni ñoom duñu ay chauffeur ndax ñoom maa leen yar ku ci chauffeur ko gaañu kii man maa ko yar nekkoon nag ñun plus de vingt ans kooku nag xam ni moom daa jàng brevet ñu soo ko waaw. waaw mais euh, sa takk der ci kaw tali mu waree. parce que li war a oto takk der yi xam nga rek ñoom ñoo nekk sécurité ci yoon bi. man bi ma ñëwee ci ñoom laay fekk fii ñoom ñëpp sapeur pompier gendarmerie police ñoom ñëpp fekk naa leen fi ak autorité yu bëri ñoom nag dañuy def seen liggéey xëy na nag diggante diggante bu pour contrôle amul xel mun na daw nit mun na daw foofu mais nag fu ñu xamee fii di def am montage dañu teg seen tànk ñëw ba ci ñoom droite waaw mais nag wax déggal tàkk jëri ñoom ñu ngi def seen liggéey kémti lay kattan def nañu lu baax te lu mu am rek ñoom dinañu assister def nañu lépp depuis depuis six six heures du matin wala sept heures du matin ba léegi ñoom ñu ngi fii. mais gis nañ ci année bi tali bi am na logique bi mooy ñetteelu accident. yaakaaroon tali bi moo baaxul wala tali moo xat wala lan mooy problème mu tali bi. non distance tali bi encore dafa xat tali bi moom dafa xat ndax diggante tali bi ak camion ñaari bis wi ñu tasante rek dafa am xam ne day teggi tànk ba kay baay moromam jàll camion la même chose. loolu ma nag lu bari day indi ay bi ndax kii lu mu doon éviter benn oto bu ndaw la doon éviter par lii fekkoo loolu moo tax nag tali bi tali bi tali bi moom wax dëgg yàlla xat na xat xataay boo xam ne macha allah il faut que rek ñu jéem ko yaatal waaw alhamdulilah merci